asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw maanaam sikkar si moom ngeen sax ci rek te farlu ci yombul nag ndax dox la boo xam ne moom li fekk ànduta ku jaayante rek boo ko fëkkee ne ci tamit man ngaa dem ba yàgg nga mel ne ku yaafus wala ku tayal te ñoo yëpp tamit mooy yi bakkan di def rek muy bakkan yooyu ma leen doon wax nga xam ne moom ñoo sonal nit ci di ko découragé ak di ko nagamloo ba tax muy tayal ci lu koy gën a jagaloo boromam ba tax na moom képp koo xam ne dal da nga bëgg sa borom te bëgg a jariñu ci zikr moom da nga ciy sax dàkk wala ko laabal sa xol laabal sa jëmm laabal sa yéene fexe ba say jëfte win nga sellal ko jug rek wuti sa borom di ko tudd boole di ko jaamu di ko fàttaliku loo ciy def nag bu ko def ngir bëgg ci martaba wala di ko def ngir bëgg ci wërsëg wala bëgg alal wala dara waaye looy def ci lu jëm ci jaamu yàlla moom na ko def rek ngir jëm yàlla <coughs> bi noonu jàngale saxaaba yi ci njëlbeen nga xam ne booba lislaam moom li la ciy tàbbal mooy baat bii rek la ilaha illallah muhammadu rasulullah fu mu la mën a fekk ci taqus boo ko tuddee rek set wi ci waaye nag ndax day da ngay wax ni day day fomp wala day day raxas ba tax ngay taqal di daw di demaat di sóobu ne da ngay da ngay setalaat eh, maanaam bi nga jógee ba ne da ngay setal rek loolu mooy tudd taw ba ci yow maam da tuub tuub nag gi ci gën mooy na suux maanaam tuub gu sell tuub gu sell nag eh, dangay fexe ba bañ jaawale ñaari ndox yi mooy ndox mi nga naan léegi ak ndox mi nga gaanuwaay ndox mi nga naan léegi sell gaa tax nga naan ko waaye boo ko xasee gaanuwaay waratoo ko laal muy bi ngay tuub fiñ la wommat jaarle la fa ngay tuub boobu may nañ la nga sangu sangu googu nga xam ne ak tuub lay doon su ak summiku lay doon ci bakkaar yooyu waaye bañ caa jaaraat mu mel ne fu la gaynde dàqee ba nga rëcc nga yëg na ma nga fa tëru di la xaaraat yoon woowu loo ko gën a mën a teggi moo gën ndax boo fa jaaree jumbur nga fekkaat ko fa te lam la doon dàqee bu la ci jàppee xam nga lim lay def lor la rek lay def noone ngay teggee yoon woowu doo ko fàtte foo toog di ko xalaat sa xel du ci jug buñ la tuddalee gaynde sa fit dem buñ la joxañee yoon wa saw fit dem boo réeroon ba gindikoo ca yoon woowee sax daga nga wutaat beneen yoon wu dul woowu ndax gaynde mas fee dàq ak yitte ci ngay am ci ku soobu yoon woowu nga xamal ko yow fa jot a daj ak na nga ci jaar ga fa jaar ak lalafa la fa fitnaal ba tax tànnatoo yoon woowu doon saw yoon ni nga koy dawee ak ni nga koy siiwalee ba ñëpp di ko wattandiku noonu moo di tuub mooy bàyyi loo xam ne amatoo pos-posu di ca dellu su boobaa nag baat bii di laa ilaha illallah ki tuubee noonu ñëw dugg ci lislaam bis boobu lañ ko sang-sang goo xam day mel ne kuy doog a gane jamono ci ñaari way juróom baat boobu nag bu fekkee ne loolu lay defal koo xam dafa daan tilimal ngiruk dundam kon ku farlu ci jubal ak sellal saxoo baat bi lim lay yëkkati par bis ci ay maqaama wala ci ay waxtu yow sax mënoo koo xayma mënoo ko natt kon nag nañ ci farlu bu baax te xam ne ñi taxaw yëpp nag ci mbootum baat boobu la taxaw jublu gi ñu jublu penku sax buñ ci génnee mbootum baat boobu mooy for mooy fon ba day mel ne kon sax dara nekkatu fa ndax néewuñu ne fal yaabudul bayta waaye fal yaabudu rabba hadal bayt la ñuy wax boroom néeg bi la ñuy jaamuloo waaye du néeg bi kon baat boobu kalima la boo xam ne tawxid la kalima la boo xam ne kalima shahada la waaye kalima la boo xam ne kalimatul ixlaas la maanaam baat la boo xam ne dalaa woma rek jëmee la ci wéetal yàlla goxam ne gu sell lay doon dara raxu ko ci sa xol yonent bi nag communiqué na ci nu ne ndax yonent yi yàlla masa yónni yëpp euh, làmmiñu ñam leen yónni la leen di jox maam euh, da leen wax na ngeen waar nit ñi ci lakk yi ñu dégg wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum fa yudullah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al azizu al hakim ci suratu aya ñeent kaat yàlla day wax ne yonent bu nekk rek ci làmmiñu ñam la yebal la daan jox ngir nga mën a wax ak ñooñu waaye ñim masa yónni ñëpp tamit ci tawxid ji rek la leen yónni moom yónni ñoom yónent yëpp ci suratul anbiya aaya 25 boo ca demee da nga dégg mu naa ko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuxiya ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabuduni musuma yónni benn yonent la jiitu lu dul daan woote rek ci baatub yàlla rek moo fi nekk di yàlla nañ ko jaamu kon mooy tawxid kon nag nu farlu ci bu baax a baax waaye nag loo taq-taq tamit boo ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ku yor wiraasaam ndax jamono june eh, li tax yonent bi du fi jug mooy ndono li moo fi dul jóge ndono li moom du fi mës a jóge su boobaa tamit na yonent bi daan defal naafiq yi bu ñu demee ba seen xol yi yàqu mu tilim wala yahud yi ñu bëgg a ñëw tuub dugg ci lislaam yonent bi dana dalal seen xel ci su ngeen bàyyee la ngeen nekkoon ci ñaawteef te delsi dellusiwaat ci njub tamit ma teg leen ci yoon jéggalu leen yàlla yàlla jéggal leen su ko defee ngeen dallu ca la ngeen nekkoon ci sóoratu nisa yi 64 ay 64 sóoratu nisa yi wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi isnillah walaw annahum id dalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llah wastaxfara lahum arrasul lawajadallahu tawaban rahima lawajadal لوجد tawaban rahima ci suratu nisa yi aya 64 manam yonent yi ñoom dañ leen yoni rek ngir ñu di leen top ci ndigalal yalla waye nak bu fekke da ngeen togn seen bop nek ci ak moy wala ngeen nek ci ndeng ba bëgg delsiwaat su ngeen demee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen tek ci yoon wo xane dana defarat seen bakkan te su ngeen ñëwee tuubal nu nun yàlla nun nu jéggal leen te da ngeen nu fekk nu doon ay jéggalaa kon yoo xam ne euh, yërmande rek lañ feese wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi isnillah walaw annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuk fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban rahima kon nag euh, li fekk nit ki mi ngi yit yittewoo bakkanam ngir defar ko saa bu ñëwee ci mu murabbi bi cheikhul murabbi bi day taxaw ci wirasa wi ngir wax ko ne ko lee nga nekkoon kat nii mel ak nii waaye nag soo ñëwee da fekk yàlla moom di kuy jéggale te yërëme foo xam ne soo demee ba wëlbatikuwaat ngir bëgg a defaraat sa bakkan yàlla pare na moom gàttandu la ngir nga defar sa bakkan boobu kon nag nu farlu bu baax a baax te xam ne yombut ndax am na ci ñi nga xam ne euh, day mel ne rek fii nit di jaar ba keroog muy mënal boppam di daw ak i tànkam ci ay loxo rek lay nekk diiru bi mu ne ci biiru yaari euh, biiru waajuram wu jigéen ba ni mu ñëw ci àdduna ci ay loxo lay nekk ba keroog muy jàng toog jàng jàng jàng raam jàng taxaw ba jàng dox ba mën a daw ak i tànkam ba mën a dem ak kàttanam foofu yor na doole boppam joo xam ne day jëfandikoo léegi doole boppam jëfandikoo xelum boppam ak yu baree baree bari foofu ñu lay yar nag ci sa wàllu matière noonu lay lay yare ci sa wàllu ruux nga xam ne faaw ci njëlbeen lu say at bari bari bari te toggaguñ la ci yàlla jaarale wuñ la fiñ la war a jaarale lu sa at yi bari bari yàgg ku ñu doog a euh, indi jamono yéen a am Eh, yaa yàqul liira yam daanaka ndax képp koo xam ne sa bakkan la man moo la jekku daanaka boo dee maga tamit gone nga fa yàlla waaye képp koo xam ne not nga sa bakkan ba tegu ci li yàlla bëgg boo dee gone tamit mag nga fa yàlla kon nag nu farlu bu baax te xam ne eh, ay wommatukaay munta ñàkk képp ko am ku lay wommat nag tamat ku sëkk na nga fas yéene góorgóorlu ànd ak moom topp ci ginnaaw mu wommat la ndax jamono lañ toll joo xam ñi waroon di mat nit ñi di leen delloo ci seen boroom daanaka ñoo gën a sànku ñoo gën a réere yàlla ndaxit it fi may xew adduna si eh, eh, guddi wax set la dafa lëndëm këriis daanaka ku ci yorutub làmp kenn warutu laa jiital ndax it ku ci jiitu te yorub làmp danga nga ci pax te boo ca daanu ko topp sa ginnaaw daanu ci pax ok jërëjëf